benn jigéen bu ñuy wax astu soxna yàlla dogal mu doon mucc dem ci hôpital ba bakkanam des fa bi ma ko jëkkee xelmati maanaam wax ji am mbind la woon booba xaw ma woon sax ni Louga la xewe ginnaaw bi laa dégg coow li nag ma dellu ca biir internet pour am ci idée yu gën a leer muy njalbeenu idée man nag euh, ñu bare joxar bi nañ ma ci ndax dëkk gi ma dëkk Louga ak xam gi ñu xam ne damay faral di addu ci li xew ci réew mi waaye nag man duma citoyen Louga toi citoyen sénégalais la kon muy Louga muy bañ di Louga di feneen fu mu mën a doon ci biir Sénégal la ma fay wax ak la ma cay def du wuute li am daal mooy man duma topp mouvance duma topp mouvance maanaam coowandoo waxandoo ku ne di déedéet damay bëgg mbir bu xewee ma jaar ko ci jaaruwaay ya ba xam ca la ma ca mën a wax ba su ëllëgee kat li xew ci réew mii maa ngi jéggalu dama juum dañu ma wax lu ma xamutoon maa ngi loolu laay ñaan suñu borom mu musal ma ci waaye faw may doxale noonu ngir mucc ci loolu bi ci topp itam mooy waxal ci nangam moom saa yu ma ko déggee sama cawarte day wàññiku ndax day mel na kon ñoo ñu naan ma waxal ci nàngam ñoom ñoo may sant may wax walla ñoo may tere may noppi déedéet lu xew lu mu mën a doon daal am naa nag nu may doxalee man soog caa mën a wax ci wàllu gëstu ci wàllu xool ci wàllu xalaat ci wàllu dem ca fa nga xam ni fa la mbir ma xewee dafa am benn mbokk moo xam ni bi may waaj a def video bi daf ma yónnee ñaari bayit ci leneen luñ doon wax muy bay bayit yu am solo mu ne laa taxkumanna bi ma samicta an il wara in chita adlan faxkumanna bi ma tara fala rubba ambain atatka muribatun amat uyunaka an xaqiqati ma jara mu ne bul àtte ci li nga dégg ko ci nit ñi su dee da ngaa bëgg ak maandu rekk nee na na nga àttee li nga xam ni moom nga gis wala nga dégg ko wala boog nga am yeneen xeeti firnde ndax la nga xam ni lii kat moom danga cay xel ñaar wala nga koy fowe ci fore ci wewu nag nee na mën naa gumbaal sa say bët mën naa muur say bët ba doo gis dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ja ñaari bayt yooyu mbokk mi ñu daan wax Fadil Asfar moo ko bind noonu nag laa dem déglu kon version boroom kër gi ak euh, suma juumul goroom la walla yaayam yàlla dimbali na ma alhamdulillahi rabbil alamin ba ma am jotaay itam ak ki nga xam ni kii mooy directeur bi loolu tey ji ci bëccëg la woon moom déglu naa ay waxam la nga xam ni moom la doon wax ña nga xam ni dañu doon xalaate seen xol te xalaatewuñu seen xel am nañu ko ci jam man de leen rek laa ko jamete loolu suñu borom tabaraka wa doy na ma seede moom it dana dégg sama kàddu gi ndax day seetaan samay vidéo leen laa ko blâmer mooy yéex a réagir ndax sénégalais dafa bindoo benn nopp quatre-vingt pour cent sénégalais tell ñu ne damm na kon bu communiqué jotee boo yéexee communiquer léeg-léeg dana fekk la nga doon bañ mu tasaaroo tasaaroo na kon looloo ci am waaye nag administration ku ne xam na ne hiérarchie la hiérarchie boobu mooy ña nga xam ne ñoo la yilif ca kaw ñoo lay wax kañ ngay wax ak booy wax sax yan kàddu ngay génnee loolu nag kon seen responsabilité ñoom ca kaw ma jàpp ne moom kon dañu ko sant mu wax li nga xam ne moom la wax bi may tàmbalee def video bi bi ma koy waaj a def laa dégg ñu ni jële nañ ko ca place ba mu nekkoon loolu tubaab di wax agneau du sacrifice maanaam dañ koo yoole dañ ko yoole dañ ko sarxe ndax moom nag wax dëgg yàlla am na responsabilité parce que moom moo yilif hopital bi daanaka wuutewul ak arbitre euh, ak entraîneur bi nga xam ne bii moom mooy formé footballkat yi waaye moom forul kenn ku nekk ci mbedd déedéet daf leen a fekk ci bërëb yu yaakaaru gis seen technicité ci wàllu football mu jël leen yóbbu leen gën leen a tàggat ngir ñu football kon bu football bi amee échec ci équipe bi yaakaar naa ne quatre-vingt-dix pour cent ya du du ca génn footballkat ya équipe boo xam ne bii équipe excellence la yaakaar naa ne bu ñu amuloon entraîneur sax te méngoo ci seeni kàddu di waxtaan danañu am résultat yu bokkul sax ak suñu amoon entraîneur mun naan leen jaar leen fii loolu laa yaakaar ndax football nag ay tànk kum xel a koy def ku ne xam na ne méngalewuma ko équipe bu ndaw ak équipe bu mag bu ñu daje woon équipe bu ndaw ba moom yaakaar naa ne du am chance équipe nationale yi nekk ci suñu réew mii masalan Njàmbur wala nga ne Gorée wala nga ne bu ñu leen boole woon ak Brésil yaakaar naa ne euh, na muy demee ñëpp xam nañ ko te demaguñ ca loolu kan directeur boobu nga xam ni moom lañu ñu wàccee waxoon naa fii ci jamono 2015 la woon ma yónnee booba directeur bii nekku fi yaakaar naa ne sax bi ko jiitu sax neewu fi woon ma yónnee woon leen lettre ñoom waa hôpital di leen wax ci wàllu éthique ak déontologie incha allahu bu ñu yàlla mayee fanaan jàmm lettre boobu nga xam ne moom laa leen bindoon ku dem ci sama page Facebook da nga ko fa fekk 2015 la woon jortu naa ne noonu ma waxe woon ak ñoom ca lettre booba ku ko bu ñu ko déggoon doxale ko noonu mën naa am jëye ji am tey du am walla buy amit du àgg ci tolluwaay bii hôpitaux yi nag képp ku taxaw ni baax nañu muy benn ci xott gi maanaam tabaxu hôpital yi baaxul matériel amul waaye li yées mooy ay formation sur le temps ngi ci biir loolu ñépp xam nañ ko nag ndax politik bi dafa yàq réew mi bu yàgga yàgga yàgga yàgg bari na ci hôpitaux yoo xam ni ñi fa dugal ay ay ay ay lañu woon ñu lijjanti ba dugal leen loolu kenn umpalew ko népotisme ragalante de ginnaaw ci biiru bokk loolu itam dana ko indi bu dee sax jëloon nga mbokk moo xam ni am na diplôme am na xam-xam wala boog gis nga ne kii kat profilam mën naa nekk profilu ku mën a avancé ci biir santé waaye yow wutal ko poste dong moo la doon lijjanti muy bale di faut di raxas ba xëy suba muy pikiir loolu kenn umpalew ko ci réew mi kon premier responsable yooyu première responsabilité te yow mi nga xam ne yaay directeur hopital bi léeg-léeg doo ko sañ a bañ ndax ministre la ko yónnee wala xaritu ministre la ko yónnee loolu mooy dox ci réew mi diirub juróom fukki at yi paase li may wax kenn umpalewu ko kon loolu mooy dëgg dëgg damm-damm bi nekk ci biir li gën a gën a bari ci hôpital yi waxoon naa leen fi nag ne leen man gëmuma yoonu senegal la ma joxe woon raison yit nag yaakaar naa ne ñépp gis nañ ko seen bët yoon atte ñu dégg ne kii kat tooñ na daan nañ ko ah xëy na ci at yi ci kanam waaye li weesu woon ku ne xam na ne réew mi yoon du fi doxe ni mu war a doxee kon ku fi am lu la metti soo gisee fajal sa bopp bi di am sax loolu moo koy gën di indi seq ak nit mu lay fonto di la këll-këllee ngeen dem ci yoon doo fa jële lu dul gàcce ak torte te fekk mu tooñ la toññar bi la kon loolu moo fi nekk lii nga xam ne nag moo xew di jëyee ci hôpital bi jigéen ñëw di wasin li nga xam ne moom la goro bi wax ne dañ koo sàggane dañ koo toroxal dañ koo gëdd dañ koo saaga loolu ko ko miim naa feq nga neew ma hôpital ñëpp noonu la ñu mel de te li ci ëpp sax ña yor diplôme meluñu ni ña yor diplôme médecin wala sage femme wala euh, infirmier ñu ci bare meluñu noonu ñu ci bare melu am na ñoo xam nag les diplômes leur montent à la tête maanaam da ngay jàngas lëf rek yaakaar ne fi mu ne àddina yaa leen yilif am na ci nag waaye ñu ci am diplôme généralement du ñu am yooyu problème ki nga xam ni kii moom fañ ko teg da koy jomb ndax njàng tegu ko fa xam-xam tegu ko fa yar tegu ko fa mooy nekk ca biir hopital ya di di rajaxee di rajaxee kon loolu kenn sañu ko miim lii nga xam ne ñii nettali nañ ko wax dëgg yàlla nag lay wenn pàq la it nag ñoom ñaar mën nañoo méngoo version bi lu mën a xew daal ña ca des man dégguma leen ñoom ñooña laajuma leen ñoom wax dëgg yàlla ki nga xam ne daal moom laa laaj mooy ndeyi mbili ji nga xam ni mooy moo yilif hôpital bi la mu ma wax ci version mooy li mu wax ci internet ñépp di ko dégg point de presse am bi mi ngi ci Facebook lii xew ci hôpital bi nag mooy image yu Sénégal hôpitalu Louga bi moom ci tane ci réew mi la bokk demal CTO ñaata yoon ngeen di dégg ñu ne yóbbu naa ko hôpital sàngam ñu ne amuñu place yóbbu naa ko sàngam ñu ne amuñu place ba mu dee ci say loxo ñaata ci réew mi ñaata ngeen dégg ñu ne indi nañ ko ñu teg ne duñ ko laal te indiwu leen euh, prise en charge ñaata yoon xamu leen nu mu toll. réew mi moo ni doxee ku juddu 1960 indépendance ak léegi tey nga xam ne yaag ñun ñi yéen a maasee at ku ne xam ne ne réew mi ci wàllu yu baree bare bare dafa diig éducation zéro santé zéro koom-koom zéro loolu moom lu waay gàtt-gàttu xam-xam nag wax ko kun naa fekkul di nga xam ne réew mi wax dëgg yàlla fa mu jugee moo gën fuuf fi mu nekk tey jii te ndaxam école yu bon yooyu hôpital yu bon yooyu même lekk yu bon yooyu ñi nga xam ne ñoom la ñu jox suñum réew du ñu ca dem duñ ca dem au lieu ñu tabax hôpital yu baax ni nga xamee ne noonu la euh, Niger tabaxee hopital de référence hopital de référence quarante milliards chinois yi ñoo ñëw ne ko lan nga bëgg yow yow Niger réew ma quarante milliards laa leen wax de te ñaata structure ngeen fi dégg ñaata bërëb ngeen fi dégg ci réew mi ñu tabax ko yoo xam ne yi amul njëriñ maanaam su fekkoon ne am na benn benn njëriñ rek ma ni am na njëriñ amul njëriñ amul njëriñ en tout cas baadoola yi nga xam ni ñoo nekk ci ay jafe-jafe ñoom amalu leen njëriñ te ñooñu ñooy daanaka juróom benn fukk ci téeméer ci réew mi Niger ba ñu laaj leen ñoom ñu tabax hopital boo xam ne bii ju juróomi téeméeri la la nekk ci biir hôpital ba waxuma ko nag mi ngi ci internet ku ko tàppee gis ko seize hectares ci la ñu tabax hôpital ba bloc opératoire ba seize salles d'opération nga fa ca biir mais loolu réew mi mu am dañ caa boole sax ne nag léegi ñi nga xam ne dañ daan génn ci dem ci bitim réew di faju ji te bokk ci nguur gi ñoom nguur gi dootu leen jël en charge hôpital a ngi nii ku bëgg faju fajul am maa nag ku yor sa poos te bëgg a dem tukki nag kenn du la tere waaye réew mi moom dootul jëlati en charge lu dul ci hôpital bi bala nga mën a def loolu nii ngay def kon kon mbokk yi lii nga xam ni moo xew ci sante bi ba nga xam ni ñoom ñi nga xam ni ñoo jiite réew mi nanguwuñu fee fajoo loolu ñépp a ko gis kenn bëggul a faju ci ñoom ci réew mi parce que réew mi dafa yàgg ci ay nax dafa yàgg ci ay fen dafa yàgg ci maslaha maslaha mbokk yi directeur bii nga xam ni moom la ñu sanctionné tey jii ci weer yi walla semaine yii ci ginnaaw ay médecin def nañ fi ay jëf yoo xam ne yii faute lourde la moom mu jóg sanctionné leen di leen dàq nit ñi jóg ne ko du ca dal seen syndicat ak ñeneen ak ñeneen loolu ku ko weddi laaj ko ku bokk ci hôpital ba moom gémmiñam tey moo ko nettali fekk na man xamoon naa loolu yëgoon naa ci dara yëgoon naa ci dara nit ñi taxaw wax a wax te la def faute grave la mooy malaat ñëw ci hôpital ñoo médecins yi ñuy dem di xarmat ak infirmier yi di xarmat ci privé yi nga jël malaat yóbbu ko ci privé fay ko ko lu ëpp loolu bu dee ku mën du ko bañ ndax moom na wér rek loolu faute lourde faute grave la te loolu mooy xew ci daanaka hôpital yu bare ci réew mi mbokk yi bi mu ci waxee dañ ko ne teg ko ci suuf intervention jóge fu ne nit ñi di di di wax ba ci ay kilifaam sax ñàkkul ñu ca damm loxoom ñàkkul ñu ca damm loxoom su fekkee ne nag moom directeur bi dañu wax ne njiitu réew mi daan na ko daan na ko teg na ko ay daan kon d'accord nañ ni faute am na waaw ana responsable yooya ñi nga xam ne ñoom dëgg dëgg dëgg ñoom la ñu jàpp ne mbir mi ci ñoom la sababoo ana ñooñu dégg naa ñu ne convoqué nañ leen police ana ñi fi ñi ñu fi jiiñoon ni ñoo sàggan ba liir ya lakk ca hôpitalu Linguère ba dàq nañu directeur ba de ana ñooñu est-ce que waxaat nañ ci nañu ubbi xelum askan wi di leen informer juste ba nit ña xam ni ku def faute dañ laa war a daan maslaha bi ci boppam mooy yàgg ci réew mi réewum maslaha réewum intervention réewum jéggal leen ko réewum seet leen ci yàlla réewum yàllaa ko dogal mooy Sénégal gi xëy na lii mën na jur déclic muy tàmbalikaayu ñu wër nag taxaw nag audité hopital yi xool personnel bi nga xam ne moom la ñuy dénk bakkani malade yi ndax ñoom am nañu compétence yi est-ce que am nañu xam-xam bi es ce que am nañu formation est-ce que am nañu nite gu ñu mën a taxawoo ay malaat loolu lu jaadu la ba pare ñu boole ci wut bërëb boo xam ne bii malaat bu am problème ñu ne la demal fa nga jooy ko wax ko ca kaw nit ñi déggandoo ko wala bu ko malaat bi mënul mbokkam mën faa dem loolu nguur gi moo ko war a créer donte ñoom créé wu ñu dara lu baax parce que lii bii situation bu amee mooy santé bi ci boppam moo amul santé santé bi Sénégal moo amul santé santé réew mi bu ñu jàppee kii tey ji sanctionné ko ah ak a bari woon ñu ñu war a mën a sanctionné ak ka bari woon ñu ñu mën a sanctionné ak ka ñoo xam ni mënoon nañ la mën a sanctionné ndax alal yi ngay dégg ñuy wax naan diw yóbbu na ko diw yóbbu na ko diw luubal na ko loola boo ko dajalee woon tey jii lu mu gàtt gàtt gàtt muy quatre cent milliards gën gaa tuuti laa wax muy lu tuuti tuuti quatre cent milliards yoo xam ne nee ñu fii ñu toll ñi ngi ci loxo ay nit ñu lu làq ci ruq di ko di di xaar di xaar pënd bi wuri quatre cent milliards à raison de quarante milliards dëkk bu nekk ci Sénégal day am hôpital boo xam ne bii cinq cent lii lañ fay def ni ñu ko defee fii ci Niger kon mbokk yi coow laa ngi noonu dégg naa commencé nañu procédure bi waaye ma wax la ma doon wax rek man wax dëgg yàlla gisaguma benn raison bu valable tax may gëm yoonu senegal ndax nag lii bu fekkoon ne dañ ko doon saafara ci fañ ko war a saafara ak yeneeni fot yu ni mel nag nit dawal oto rey nit ci oto boo xam ne bi amul këyit wala oto boo xam ne contrôlé nañ ko xam nañu amul woon euh, baaxul woon ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu ni mel loolu lépp ci réew mu ñu tabax ci ay fen la ak yeneen nag yoo xam ne incha allah tàmbali nañ ci sax beneen liggéey bu bokku ak li ñu leen di wax nii te mën na am buñ ci àggee danañ ko partagé ak yéen bu ko defee ñu yemale kàddu yi fii ba beneen yoon asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.